yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a ak wéram waaye ziare ak a ñaanal mbooleem njabootu Serigne Touba Xaadim Rasul gépp waaye di ndokkeel ak a ziar mbooleem ëtti lislaam yëpp di jaajëfal bu baax ak ziar nag borom ëtt bi ñu tàbbi di Serigne Amsatu Mbakke ñu gën ko miin ci Amsatul Xadim moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke ñu jaajëfal bokki téléspectateurs yëpp ci topp gi ñu topp seen programme bii nga xam ne moo di 18 safar 18 kàngam ñu ciy dalal ay boroomi xam-xam ñuy waxtaane ci kàngam yi toppoon Serigne Touba Khadim Rasoul ngir waajale ko bisam bu mag bii te mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bi mu wax ne saa yu agsee na ma ci ñëpp sant la sama borom subhaanahu wa taala te ren jii mu war a nekk ajjuma le 24 août incha allahu rabbi mbokk yi 18 safar 18 kangam tey jii ñëw nañ ci Serigne Amsatou Mbacké ngir waxtaanee teewaayam boo xam ne teewee na ko ci waajtaayu màggalu Touba mu teewe ko nekkuk waajuram Cheikh Abdou Lahad Mbacké muy waajal màggalu Touba mu gis ne ko daan waajale ak fam ko teg ak lam ko jaral waaye mu ànd koog seriñam sëriñ Saalihu Mbacké moom it muy waajal màggalu Touba mu gis fam ko teg ak lam ko jaral ak ki nga xam ne moo ko wooteel boppam di Cheikhuna Ahmadul Khadim tam woote sant le sant borom subhanahu wa taala te yaakaar naa mbooleem xeeti jaam jaamu yàlla yi gu ci gën a màgg cant amul waaye ni ko sëriñ Touba di sant it boo doon wër àdduna ba mu daj doo gis kenn ko sante borom bi subhaanahu wa taala nu toll na ni ko sëñ Tuubaa sante gi cant googu nag li muy rëy rëy mu waxal boppam ci ne dama lott ci sama làmmiñu bopp ci ni ma war sante sama borom kon nag kaay leen sant le ma ko tam doon cantug jëf ak cantug wax cantug jëf ak goog wax mooy danaa ko sant ci sama xalima waaye danaa ko sant ci sama yaram waaw loolu nag lam waxoon ne na waytu shukruhu la daa daari salaam wa hinda tuuba bi jismin wa xalaam kon day mel ne cantu yaram gi day ànd ak bernde waaye cantu xalima gi day ànd ak jàng alxuraan ak xasida ak la ca aju kon nag sëriñ Abdou Lahad daan wax ne nañ ko gàttandu nañ ko dalal nañ ko gunge kon sëriñ Amsatou ñoo ngi waajal 18 safar bokk yëpp seenum xel dem ci cant gi ana fan lañ ko war a teg ak nan lañ ko war a sante ba bu jàllee nañ ñu mën a rafet njortu ci ne la sëñ Touba santaane woon def nañ ko kon danañ jort ci li nga xam ne moom la sëñ Touba ci koo xam ne yaa ngi koy def waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Abdou Galass gannaaw bu nuyoo ñu fi teew ak ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu xanaa yëkkati kàddu yu gàtt rek jëmale ko ci safar ak borom safar mooy Seyxuna Cheikhul Xadim di jëmm joo xam ni sunu borom da koo jaraloon lu ne mu defal sunu borom lu teg sunu borom itam fu ko kenn tegut sunu borom defal ko lu mu deful kenn ndax sunu borom moom ay yëfam yëpp da koy jaay te dañ ne ku ñaan ñàkk suñu ne da ngay am loolu duma ci sori ndax sëñ daal daal na ko fii ci xalwati bi sëñ Tuubaa defoon ci jumaay sëñ Mbàkke Madina ji la mu ko bëggoon a def te at yu weer yu néew dox diggam loola. mu nekk xutbul xaws waaye moom mu jël bëtam lool gis lu gën a kawe lool muy bokk ci saaba yi sun boroom xamal ni ko loolu moom dafa faat yonente bi kon sallallahu alayhi wa sallam xamal ni ko loolu dafa faat ndax ñi dañoo àndoon ak man xare jihaat te loolu jeex na waaye moom esti ñu ne kon nag am natt lañ koy def mu wax ni wóor na ko ni moom bakkan bi la xamul ndax euh, bindu ko ba xam lu at nu bantu waaye nag hmm, luñ ko tegoom dana ko tegoo borom gànteel ko ak bakkanam xamal ne ko natt yi nag li ñu ci jàppalee mooy bu ñëw dañ dana ñëw xamal la waxtu mu yaay foofu lañ ca yem joom nag tax mu muñ loolu lépp yanu ko yanu bu rafet bi mu ko yenu itam euh, danga ñuñ defu dara sooxut defu dara dafa dem rek direct ci li ko tax a jóg pas-pas ba mu jógee nag ak namel ga mu jógee te la ko suñu borom xamal nag ko nag li nga bëggoon moom am nga ko moo tax am natt lañ ko teg ci bis bi moo xam ne dana am li mu bëgg moo tax muy sant ci bis bi ndax xam na ni moom li ko tax a jóg jomam may nag ko fulaam may na ko roog gi ottam suñu borom dimbal na ko ba ba du fi jóge kon nag ki la mën a garante li muy def. تلاوة خرجت يوم السبت الساعة من العصر لخدمة المختار fii sax li sawar bi mu ko defee natt yi metti na lool waaye teewul àttan na ko muñ na ko gis nga ndakaaru dem na fi lu ne bool nañ ko moom dugal nañ ko ci teen sëñ bi nett la soxna jaaraa ko fa génne dugal nañ ko ci ci puur dugal nañ ko ci di ko togg kas nañ ñoom leen dugal ko ci loolu lépp def nañ ko waaye sëñ bi ni ko waxee bi mu demee Mbàkke Bari jóge fi dem jeewal te gaa yi di ko jël si te amagul ndigalul boromam ndax moom tubaab yi duñ ko conditionné borom moo koy conditionné loo ko wanaan la koy xawal la koy la koy la koy la koy xamal moo war a montar borom lay ñëw ba mu ñëwee ba ndigal ñëw nag yàkkamte na fekk na yónni na maam Thierno sax waaye ba mu ñëwee di ko wax dana ko jëru dara jëru maa wax ba nga taxaw janj ba xarandoom yi ndox dox sa tànk maa ngi jàkkaarloo ak moom boobu yàkkamtee génn rek dem ndar fan la gisee Ahmad Ndiaye ma béy ba def asiru googee def ko seere ndax ñoom ñëpp amoon na ñeewante ci moom ndax jom ji ci moom ak maandu gi ci moom ak fulla ji ci moom ak sell gi ci moom ak xam-xam bi ci moom bëgguñu woon mu génn ñoo bëggoon mu toog fi rek di gédd ni di ko tax ñëpp ñeewante ci moom bëgg mu wayefal ki waaye moom jël na di soom ferm bi boobu dafa engagé ba noppi doo ko jëm ci borom. wala ci yooyu nga dégg yëpp ci la bi mu defee assiro ni ko bokk nga ci ñi may seere bàyyee ko xasidu ko muy xasidu ko am sol assiru maal abrar yi na assir wasanal xëy daa andi yow naa ko assir maa ngi dox ànd ak yu baax yi nit ñi jàpp ne boobu maa ngi ay prison la <laughs> te fekk dégg ko ma loolu ba muy wax sa àggante ci sax di wax naan rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi a na ci wax noonu wa asaabu ak yëpp àgg na àgg na ci bay wax axis ni axis ni yaa safihi wa sirti hunaa wa xadan jama tëmur sama tëmur yëpp wax na ko waaye xamoon na fi mu jëm daal xamoon na li mu am xamoon na ne am na ko tamit bi mu demee nag ñetti guddi Dakar du ma ci jàll kay ndege noonu nag wa noonu gabon fañ koo yóbbu ay gont ay fel ak ay lu ne nekk fa hmm? ànd ak kenn moom doo nga ànd bàyyi ay këram bàyyi ay njabootam bàyyi ay taalibam bàyyi léppam lu moo koy defal boppam mooy yéen yi boppam ay gaal yi boppam mooy def lépp boppam dina ci garab di ci fanaan koor di la fekk doo lekk doo doo am koo yónni doo naan waaye yónnte bi jaral na ko ndax xam na ne am na li am ba noppi bi mu ko amee nag ba noppi nag ba am jotu ki nag ci la leeral ni lim doon am ci biss boobu la ko am mooy bis bi ko suñu borom tegal natt boobu tam wóor ko ni eh, dana ko dana ko yóbbu fa ko bëgg ci la engagement nag joxe di ndigalul gi màggal gi nattu baa waaye du bisu bi mu ñëwee déedéet waaw xam daal suñu borom digal na ko ndigal la neex na ko jëfe na ko suñu borom fay na ko kenn te du ko fay kenn kon ilay yaxaat allahuma alam yakuni wala yakun abadan li mumkin fi mu teg borom nag du nit du jinne du malaayka ko fa teg li ko jaral du nit du jinne du malaayka ko ko jaral waaye li ko borom defal itam ñëpp teg nañ seen bët ndax loo xam ne yonent yi fi gën a baax waaye amuñu ko nit ñoo xam ne yàlla na gënal seen ndey gënal leen seen baay. loo digle la def loo tere ñu bàyyi buñ juree jox la ko waaye seenu sant di wéy sant sallallahu alayhi wa sallam ñëpp waaye amu ko bi mu fi jógee tam ñam fi bàyyi amuñu ko sëñ Tuubaa rek ko am mu yëf kon yoo xam ne da koo defar ba mu leer naññ moo teg ko ci yoon teg ko ci raay bi ku bëgg a jaar te jariñu jaar ci raay bi moo tax mu woote màggal gi wax li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem xeebu ci dara du ci waay man na ko ci defal sëñ Fallu ci mbaaxam woote ko ñu koy day ci dëkk bi di ko fi defee jamono yooyu metti lool naqari lool waaye taalibe di ñëw muy metti ci ci ci ci ci ci ci ci ñii ñëw ndax boobu dëkk bi dara ñëw fi waaye sëñ Tuubaa lim borom ba may ko ko ñi fi bàyyi xam nañ loolu dana ñëw ñoom gis nañ ko teg nañ ci seen bët. xam gi ñu xam ne ñëw nag moo tax ñu bëgg nit ñëpp te tey ëllëg ak yaatalu sëñ Fallu moo tax mu woote ko Tuubaa te dañuy ihmalu li àll daawada sukkur ak cant jëf lay doon jëf lay doon du waxi kese waaw moo tax ñu ci rey ndax sëñ bi sax noos la woote nañ ko waxee ndax gannaaw gannaaw ba ci gileem loolu loolu la woote njàng mii ak njabootam yu baax ñoo ko ci ñoo ko ci boole daanaka mën naa wax ne ci suñu plaat la te booba daa bëggoon ñu gàttal gunge. booba dañ doon nattable weer wi feeñ na hmm? jàpp benn fan te ëllëg suñu ne feeñu doon feeñ na nangam nangam mooy nag nañ ko gàttandu teeru ko gunge ko boo ko defee bis bi màgg dina dugg ci biir gàttandoo ko nag alxuraan ak xasida yooyu moo ci dugal lu bare bari ci yooyu waaye bu jëkk ay diwaankat ay tëggkat ay nangam kat dafa daan nekk waaye ñoom nag fonk gi fonk sëñ Touba ak dëkku sëñ Touba ni mu seetle sëñ Fallou woote ñëpp ñu ñu ñëw di ko fa defee. sëñ Blaat yokk ca loole loolu nag moo continué ba nëgëni sëñ Blaat tam ni mu daan màggale mooy moom daraam du ko fekke sëñ Tuubaa da ko gënal boppam gënal ko tey daa jox sëñ daa jox boppam ni sëñ Tuubaa joxoon boppam sallallahu alayhi wa sallam bu mu masaan ñëw njabootu sëñ Tuubaa gi fi nekk ku ci ne dana la yónnee ay nag ay ceeb ak lu koy jagal ñoom ñëpp. di ko yónnee itam seeni doom ñi fi am borom kër sëti sëñ Tuubaa yi nga xam ne am nañ soxna am yëpp da leen daan jox loolu njaboot njabootuk njabootuk sëñ Tuubaa gi fi jóge waa barsàq ñëpp moo seen ak màggal yenn magi taalibe yi ay ñoom sëñ Mudu Masa ñoo itam daana jàpp ci seen yooyu màggal gi ak bis yi ak seeni i dépasse ko taxawee ngir fonk sëñ Tuubaa ak bëgg ñuy xeymam sëñ Tuubaa ak xeymam yoon bi noonu la ko sëñ bi daan daan màggale maa ngi koy nettali am na màggal boo xam ne la ciy waxal daa daa séddale fàtte waa Barsàq ba ko fàttaloo ne laa ilaaha illa noonu leen defoon lépp yàqu na ñañ waroon jëkk dañ leen dañ leen a mujje waaye lam leen waroon a jox da ko da koo multiplier sëñ Samba ne ko fàtte woo kii lay seetloo moo nga yokk mu doon lam daan def fàtte waaw waaw ki la doon seetloo rek moo bëgg nga yokk nga kon lam leen doon jox da ko da koo da koo yokk tuubee ko itam waroon a am gi gi waroon am jëkke te mu mujje loolu nag muy njàngat solo ci jamono ji boo gisee ñoom najaax bi ñu am dañoo roy seen seen baay ci jëf waaye royuñu ko ci royuñu ko ci ci ci ci ay muuraay ak i daldi karbet ak mbuumu gàtt mbuumu weex kon waaw la metti muy jëriñ nit ñi ak dimbale nit ñi ak làddanti leen hmm? ci lañ nekkoon ci lañ doy sëñ Tuubaa ba am li duñ def noonu ngir nu am dara kooku question la ndax waaye roy roy sa baay ci kaalaak wala mba mu tilim man du ma ci fekk damay seet la bëggoon ak lañ bëggoon dañ ko daan jëf ma di ko gis moo doon ci loolu loola may jëriñ ëllëg waaye mbubb day xottiku kaala day day day yàqu waaye jëf ju rafet moom foo dem fekk ko fa te suñu blaat daana wax ne jëf ngir yàlla nett jël naa pay gu rafet ga jël naa nett li bu rafet bi te fekk waaye pay yàlla gi bokk waaye eh, nett li bu rafet te fekk jar na ko kon nag bu yàlla dee pay ba noppi nga ciy am nett li bu rafet kon nag jar naa jaay sa lu ne jaay sa lu ne jaay sa ngor jaay sa diine sa lépp doon talib sëñ Tuubaa ngir matal ko rek googu sëñ Saaliw muy wax du noonu la daan màggale moom da ca laafoon gàmm moom dafa booleen gàmm moom day mel ni bisama te ñoom dañoo ndax sëñ Blaat sax euh, gàmm bu masaa fatu day wax ni ñuy dem ko sëñ Saaliw kon ab ma gàmm ak màggal li muy def ci gàmm rek lay def ci màggal jàng alxuraan jàng xaside bernde bét ubbi say bunt ñëpp di la gis loolu itam lu mat leeral la am na bis boo xam ne sëñ bi loxo yi day metti moom sëñ Cheikh loxo ñaar loxo yëpp neewi gaa yi ne ko kon da ngaa war a toog ci kër gi bañ ñu ubbi te yabale nangam nangam mu ne waaw di leen seet may seet rek ba ñu xëyee ba gaa yi xëy si dañoo fekk sëñ bi ca mbaar muy toog mu ne taalibe sëñ Cheikh coono bu ñu am ci gis ma war naa am bu ko ëpp ngir gisee ak ñoom ndax sëñ Tuubaa la seet ci ñun waaw sëñ Tuubaa dañuy settun te it ñoom xayu sëñ Tuubaa leen di jox defuñu ko ci seen i doom defuñu ko ci seen i tey bopp ci liggéey sëñ Tuubaa lañ koy dal ak njabootu sëñ Tuubaa dañu daan laajante taalib yi ndax daana wax ne taalib yi dañoo am pëstéef ba ñëw ci yow addi jañ lay jox dañuy am yenn ba léeg-léeg nga gis sax koo xam ne ñaan di ca tëfli tëfli tëfli addi yéen lay jox bés kër gi dépasse am fi xaalis ne fi ba digg bëccëg sëñ bi xaar lu ñëw tañ dara ñëwut mataan ni ko te ñoo lëkk xaalis bi nga xam ne ma ngi fi lu ñëwaat ñu delloo ko ci mu ne bi dañoo xër am na ñoo xam ne dañuy ñëw bu ñëw ci yow addi ji dañ ciy fas lu am na ñoo xam ne dañuy ba tifli ci boo jëlee delloo xaalis ba tifli du mënoo ko caa delloo tam ko koo xam ne sa baay daan dëkkee suul xaalis soo mënta suul xam la ngay dugal ci sa biir noonu nag suulatul xamut nu ñu dugal si biir lu ñëw rek nu lekk boo gisee ñaan nangootut yu bari li rek ko wax li li li li bokk na ci soloy màggal kon nag ñi nga xam ni dañuy ay taalibi Sëñ Tuubaa yaakaar ko te war a ñëw ci bisim bi daal war nañu am comportement bu baax a baax ci yar ci teggin ci taalibi te xam ni yoon wi dem ak dikk yëpp aw yiw la loo fi di fereetam te yàlla tax aw yi rek la lay jural ndax sëñ Tuubaa géej la te ko bëgg a dolli ko nag bañ a ñàkkam ndox da ngay boole géej kon nan laab ndax géej tax da boo ci duggee da ngay set dangay ngay tàggoog ba noppi mën caa fóot mën caa naan mën caa def lu ne bis bi sëñ bi wooteem noonu dongul demee dañ ciy tëbb sàkku ci barke sàkku ci ngërëm sàkku ci njëggal te bañ koo neenal ñëw lekk naan rek ñibbi du màggal dëgg la naam ki ko def sax moo te nekk ko defut ndax suuf si ci boppam boo ci tegal sa tànk day laaba ci yu bëree bëri rawat nag sëñ Tuubaa laa jóg ba nga ñëw ci bisam bi kon jàpp naa ni képp ku fi ñëw daal yàlla mën naa def loolu sax amul yàlla mën naa def dangay dugg ci foofa da ngay dugg ci faaraxoo daara ne aw saara boobee sañ bi wax ci ñëw ñëw ngir eh, eh, nemmisu ko nañ fabu ndànk te ñëw te xam ni li nu bëgg fi lañ koy amee ndax doonoo fab suñ lépp jox ko sëñ bi sëñ bi tam coono bépp nu rekk a taxoon wax na ko ba tàyyi sababa xay bi an allah arada an anala minhu jah kon loolu leer na nañ waaye waa nakoon a saafen la xaw mi waa nakoon a xaadimin fi doomi kon gannaaw soowee ni moo ko taxoon a jóg te lim ni woon ci àdduna rek war naa dala suñu xel ci ëllëg kon bu ñu kenn ñaawloo njor bu ñu kenn ragaloo bu ñu kenn yoo xamal suñu pas-pas ci sëñ bi ndax ku ñaan ñàkk su jëndee am sëñ bi am na wut na am na fa mu ko wutee ci suñu borom la jeexalu dara jëwriñ jëm ko boole itam yé yéene na ko ba yóbbu ko ci boromam ba borom tibbal ko loo xam ne doy na sëkk koo xam nag danga am ba am ñu joxoon la kër yoo xam ne kër yi àjjana yoo xam ne sa sa sa bëgg koo dëkkale sa ñooñ ndax këri siif yeeg nangam nangam nangam la banu Israël nangam nangam gannaaw bëgg koo dëkkee sa ñooñ bëggal nga sa ñooñ yoo xam seen yëf yi bopp kër ga leen fàggoo ñu dëkk ko kon kooku mbirum ëllëgam jàqu ci mbirum ñooñu ñooñam tam jàqu ci tiitu ci waaw kon nag bu ñu kenn ñaaw loo njor bu ñu kenn ragal loo bu ko ñuy bu ñu kenn dëpp sam dugg ak suñ suñ dugg ak sëñ bi nañ dem te bañ a dellu gannaaw bañ a geesu baax sëñ bi ni ko nekk moo ñuy nekk ndax sëñ moom koo jàpp doo rëcc waaye comme jàpp doo kon nag su ñu jàppee ñu jàpp ko tawfiq rek la ñu am. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.